nekkul luy yoon parce que euh, kenn mësul ñëw laaj ma ne ma lii yax lii ku ma ne ma waxoon rek du ma dem nag di fëgg kër ñu ñu ubbi la ne loo fiy def kooku du ko def parce que aussi euh, yenuwul maanaa beneen bi euh, man même bu doon luy doxal Sénégal am si teg parce que mënoon naa toog bitim réew ah. su mënoon naa fa toog continuer liggéey li may liggéey mais man maa décidé damay ñëw mbapat boobu ñëw def ko dugg si biir ne damay créer société di jël sama xaalis dugal ko si biir bërigo voilà donc waaw bërigo ma nag <laughs> bëri woon naa wax ñu arbitre yi war nañ taxawaat <laughs> léegi euh, am na man organisé naa ko fii championnat d'Afrique organisé naa ko fii te kenn fay ma si un franc parce que ku ko yoroon dafa nekkoon si ay ay jafe-jafe budget yi ñëwul ak yooyu amuloon loo xam ne mën na mu ñëw taxaw ne ma championnat d'Afrique lan d'escrime oui de euh, oui de 2014 xaw ma 2014 année bi oui oui organisé naa ko. oui jëlaat sama société indi samay nit. fay samay nit ñëw liggéeyal parce que mënuñu woon bàyyi Sénégal mu war de noonu te pourtant l' état mënoon na ko mënoon na ko def. am na état lu mu defoon mais peut-être matul ma ñëw dugg sama xaalis organiser kan fay ma dem si yàlla mbay booy doon organiser. Euh, juillet bi juillet dama doon jël sama staff bi yëpp ñu dem jàppale ko parce que dafa am loo xam ne seqoon nañ ko. billaay mënu ma ko fayeeku donc ak ñeneen mën nañ ko seede en tant qu'observateur mën nañ ko seede voilà donc ak ñeneen ak ñeneen donc moo tax sur ce plan là awma problème parce que ñun euh, dañoo ne sport sport mooy tax tey ñuy sol yére di lekk di naan donc il faut aussi par le sport ñu jéem a contribuer développement réew mi am na ñoo xam ne nag si tabax lañ koy contribuer ñii si jaay oto ñu nag si sport lañ koy contribuer mm-hmm. donc ku ñu si woo rek ñu wuy si la si cellulaire ku ñu si woo ñu wuy si la parce que li ñuy defal keneen suñu sañoon ñu defal ko suñu réew waaw mais Jamil man dafa am loo xam ne tey jii euh, dama doon xaar occasion rek jàkkaarloo yow. Mhm. mooy que euh, bu ñuy wax rek yow sport. Mhm. kenn du la ko jàngal. Mhm. bi nga ci nekkee yàgg na. xam nga la au niveau sport bi il du tàggat rek. du daw rek. non doo dégg ma ko waaw doo dégg ma laa xalaat yooyu yëpp am nga ko. mais euh, Jamil man man de man dama ne mais ma ne comment Jamil. nekk nit koo xam ne koo xam kii la mais. personne ressource. dem ba dugg ci benn euh, loo xam ne amul bopp amul geen <laughs> non. muy lan non moom mooy le football professionnel au Sénégal. il faut qu'on se dise la vérité man damay wax li nga kii naka nga mën a xool lu mel noonu. yow lu mel noonu nga jël ci. Eh, mais il a voulu changer les choses. il pensait qu'en arrivant à la base. Ah, non non non non on ne peut pas non gis nga amul kenn xoolal dama leen di wax lenn. sa football professionnel laa bi ngay gis nii mais yóbbu xaw na yóbbu nit kaso na nit ki daw na dem na toog États-Unis kookal la ah non non ah non dafa rafetul bi sax may wax turam am na fii nii ci football professionnel Sénégal am na ah ci sa bii koo xam ne fii fii jël na après daw na dem euh, kii toog États-Unis ñi may seetaan xam nañu ñi nekk ci football bi xam nañu am na ñoo xam ne mais man xaw ma am na ñoo xam ne dañoo daw ñu ne fii bu ma fi toogee du baax dañ may ruiné ñi fi nekk ba léegi xam nañ ne ñoom ñu ngi ruiné wu amuñu maanaam dañuy dugal xaalis di perte waaye yow nag nga mën a xam loolu yow tam jamin yow ak te au niveau bi nga xam yëpp. yow nga ñëw mën dugg ci loolu. dafa amul yaakaar waaye ah, mais mais mais je pense que ne question bu pertinente la parce que euh, en partie li ngay wax mën naa si d'accord parce que bi ñuy dugg si football professionnel bi honnêtement euh, amuñu woon données yëpp mais xam nga tey ñi dugg si football professionnel ñu bëri bu ko si laaj cahier ah ñu bëri dina ko jox ñun dem nañu ba quatre ans plus tard ñuy laaj cahier des charges kenn mësuñu jox ba ni ñuy demee taas kenn mësuñu jox cahier des charges bi ne bii mooy officiel bi la ñu mës a si la ñuy demee donc c'est des trucs dañuy supposer rek dañuy supposer rek dem mais <laughs> mais beneen côté bi aussi boo xoolee boo xool xam nga banlieue bi ku ko xam-xam ne métti na mhm. pour être honnête man nga bëgg a euh, dama koy wax toujours Malick ñoo bokkoon école xamante ñu mais Malick bi mu nekkee président euh, Guédiawaye mhm. am nay moment yoo xam ne am nay nit ñu ma waxoon ne mais kaay jege équipe bi j'ai dit équipe euh, pour ma jege ko il faut mu am beneen taxawaay. Mm-hmm. et lool loolu lañ bëggoon indi lu bees pour révolutionner mais je pense que li ñu doon def suñu calcul économique foo si wuloon de parce que normalement tey bu ñu indi wuloon problème ñu indi tey on aurait été le premier club fii boo xam ne day générer ay bénéfices parce que si lool lañ doon liggéey euh, six ans yi dafa waroon am loo xam ne dafa waroon génn parce que affaire bi ku ñuy wax. ay ay ay kii rek la xel ak la voilà nga teg ay ay processus yu taxaw nga génn sa investissement parce que dañuy ne toujours c'est vrai que man may toog ci plateau yi di wax mais sama wet il aussi ay ay banquiers il y avait aussi ay juristes amoon na aussi ay techniciens comme ay Mama Sow donc domaine boo laal rek amoon nañ fa ay nit yoo xam ne mais comme ni ngay waxee yow Cheikh Tidiane nga mais soo fekkoon suñu réunion da ngay ne donc kon xanaa fii fii du géejawaay parce que dañuy wax gars yi teggi ne non lii demul lii xool ma déglu xam lu gën aw yoon ñu dem mais suñu waxee tey euh, je pense que ne peut-être am na yeneen club yi ko am mais tey mun naa la génne tey suñuy compte yëpp yëpp day des comptes yoo xam ne expert comptable moo koy validé xa ñëpp xam nañu ni recette Géejawaay euh, kenn du si ne dinul kii jox vingt mille banque lay dugg donc amoon na ay procédures yoo xam ne tegoon nañ ko loo xam ne peut-être bu ñu ko bàyyoon ba mu dem tey man mun naa la garantir ne doon nañu egg beneen niveau mais aussi dañu doon contribuer moo tax xale yi téye seen bopp ne dematuñu stade. très parce que gis nañ seen bopp si affaire très bien on reviendra avec le président Djibril Faye il faut le rappeler il a été président de Guédiawaye Football Club avec qui avec laquelle disons il a remporté la coupe de la ligue même di on me il y a ans quatre ans euh, Guédiawaye Football végète parce que nekkatul euh, Ligue 1 muy Ligue 2 pire encore euh, l'équipe lutte contre la